dama bëgg tabaxal samay mbokk jox leen ci loo xam ne ñuy ngëtu ci sama papa ak sama frère di wax non xaaral ba li jeex xaaral ba li jeex loolu nag mooy son boobu kese moo moo fi des li ma la wax noonu kese moo fi des su sinon dañ lay bëgg di wax non xaaral ba mu jeex instant bi on peut pas donner de l'argent je sais pas parce que loolu lañ lay bëgg bëgg di wax man soo comprendre leen réaction bi nga nekk de mais li ma la fi wax rek moo fi des waaw xam nga nag loolu ñu lay xaara xaara xaara danañ la xaar loolu mais lii ma la wax denc ko ëllëg wallahi lazim di nga toog ne ay suma yëgoon wallahi lazim man mais pour l'instant damay toog xool su ma gisee benn je sais pas studio ma dem ndax leen après mais la sama gàlle laa da man bon maa ngi nekk di jënte ah, noonu mu ngi noonu doy na waar nag garaaw yow yaay ndeyu mbill gi ah yaa xam lu la arrangé ak lu la arrangé wut waaye man de dama bëggoon. le fait tu sais le fait d'être ici non me plaît pas su ma leen woowoon tey ne leen dama bëgg ngeen defar suñu waa kër gi dañuy wax ne on peut pas faire ça maintenant surtout ñi ñuy wax ay waxu complot complot loolu lañ lay wax su ma leen waxoon ne tamit dem leen wax ak suñu sëriñ suñu kilifa bu fi ne duñ ñëw parce que xam nañ am nga influence bi duñ ñëw. duñ ñëw duñ ñëw. waaye léegi yow yow léegi toogal seetaan ma man danaa dugg ci mbir mi d'accord